Oui, Nous, on était sur le point de déposer, on a déjà déposé la déclaration de marche. Alors on l'a fait dans les règles de l'art, comme la loi nous le confère. Alors nous avons fait toutes les étapes, on est parti à la préfecture, on est parti au commissariat. Voici l'enveloppe qu'on nous a donnée. Ils nous ont notifié ce qu'on a à Personne ne peut nous empêcher de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Parce que le pays là, ce n'est pas un pays de Macky Sall, qui que ce soit. Nous allons marcher impérativement dans les rues de Dakar et dans les départements. Donc vous les Sénégalais, avec nous le 25 pour une marche qui sera organisée parce qu'on va le faire dans les règles de l'art. Personne ne peut nous empêcher de marcher dans les rues de Dakar. Maintenant, imam yi clergé église bi mais Macky Sall nous voulons une autorité consensuelle et indépendante nous voulons notre fichier, nous voulons nos cartes d'électeurs impérativement et nous allons en découdre avec qui que ce soit et personne ne peut nous barrer le chemin. Merci beaucoup. waaw pour le moment euh, lépp lu ñu yoon may def nañ ko teg nañ lépp ci règle 72 heures avant nañ ñu mayoon pour nga nous avons déposer sa sa maanaam demande de marche ñun marche bi ñaanuñu tàlluñ kenn li fait. def suñu fait la ak suñu Nous def nañ lu ñu def. ñoom nag jël nañ euh, benn benn benn enveloppe jox ñu xamul lu si nekk en tout cas dinañ xam ne ñun li ñu bëgg def dinañ ko def ak ni ñu ko bëggee ak tamit suñu suñu sago nu mu ñu ko noonu lañ koy defee réew mi réew la moo xam te ne vraiment fi ñu jëm kenn kenn xam fu ñu jëm fan la Macky Sall yi pare que moom réew mi dafa moom réew mi wala wala ndayam du ko moom wala bàyyam du ko moom te ñun loolu intéressé wuñu suñu àq ak suñu yelleef moom la ñuy xeex moo tax ñu ngi woo ñëpp di woo population yëpp fii si Guédiawaye marche boo ñu koy amal opposition bi yëpp C25 di woo jeunesse bi femmes yeeg ñëpp na ñëpp wàcc ñu dox jàmm parce que li ñu dox bokk na si loo xamante ni si Macky Sall fi mu jëmee réew mi wax dëgg yàlla ndox amu fa. ñun nag pare nañ lu mu laaj dinañ ko def bu laajee ñu jël suñu bakkan teele ko daañu ko teele ngir pour lal ngir lépp rek Sénégal mucc ndax Macky Sall fi mu jëmoo ñun ndox daal amu fa parce que neex ba neex mais imagine li fi xew. jël maanaam euh, euh, jël jël ñoo xam te ne ay candidat xam jël tànn jël tànn ko sa bopp jël jël jël si benn fichier boo xam kenn xam fichier lan la kenn xam foo ko nga jël xaalis boo xam da nga doon génn ay ay asaka di ko nit ñi jël fichier jël ñoo def si ñooñ nga ñëw bëgg a amal élection yu mu la neexee ñun loolu duñ ko nangu duñ ko nangu ëllëg moral le 25 dañuy wàcc si tali bi marche ba àdduna yëpp xam nañu xam ne ñu ngi wàcc marche ñi si woo ñëpp nañ si invité imam yi nga xamante ne ñoom ñoo